askan wu dëkkee ci Touba Ndindi seen xel gël naa dal ndax ndox mi nga xamante ni moom lañ joon am jafe-jafe ngir jot si fi mu nekk nii yomb na leen ndax ki nga xamante ni mooy sëriñ Abdou Lahat di sët si Serigne Sandu Lo na leen ci loolu ba ndox mi mu ne egg si foofu. jëlee nga leen koo xamante ni yàlla rek yàlla rek lañ lay bàyyee ndax sonnoon nan trop trop trop trop ci xam ne da nga daan xëy di jënd ndox ba du see bari ko ndox téeméer koo xam ne sa dépasse matul boo ca bëggee génne téeméer boo jëndee ndox daa mënta ñàkk moo nu daggalee ku mar moo nu daggalee tilim sëriñ Abdou mi nga xamante ni moom moo fa indi projet boobu daal dinay wax ne loolu lépp ci kaw liggéey bi nga xamante ni moom lay def ngir jàppale nit ñi la lii ma fi def lépp matut juróom fukki junni ci ñëpp a ngi ciy sant lu mat ñaari junni nit dinañ ci naan kon loolu jàmm yàlla gu yomb la goo xam ne saa borom taw fee xele nañu ngir buñ ko bëggee jaamu yomb. waaye mu teg si di yokku ne ki nga xamante ni mooy maire bi dafa war di dem ci askan wi ngir gën di saytu di xam lan mooy seen ay jafe-jafe. ñuy soññu laat ka mi nga xam ne moo jiite communauté rurale bi xam ne dëkkub Sëñ Tuubaa yi kun ko jox da ngaa war a saytu néew di doole yi ak sañcaan yi ndax fii wurta manqué ndox. sancaan yi war nañ leen di toppatoo ndax ndox yomb na lool. lu tollook ñaar téeméeri mètre tuyau ndox daal nañ koy branché jëmale ko ci dëkk bii di Tawféex ak Baxdaat ki nga xamante ni moom moo fa taxawal projet boobu daal leen di ñaax ngir ñu jàppale ko ci liggéey bi mu sumb ak président Macky Sall waaye ñu daal di teggi lépp lu ñuy taqaleek yoonu murit ak politique.